ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu axdi sadaqati min al aghniyaa'i wa turaddu fil fuqaraa'i haythu kaanu bunt bi nga xam ne mooy wax ne dañuy jël azaka ji ci ñi nga xam ne ñooy way woomal yi ñu di ko delloo ci ñi nga xam ne ñooy ñi ñi ñàkk ñi ak fu ñu mën a ne maanaam euh, comme niñ ko gisee woon ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi am comme li xadiis sayyidina Abdullah ibn bi رضي الله تعالى عنه وبمحمد سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يا صلى الله عليه وسلم دفكو يبلون يمن بمداد كوي وخنا فان اطاعوا لذلك فان اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم لولو نيغا خامتاني bu fekkente ne topp nañ la ci wax yu njëkk yi boobaa na leen xabaare naka buur yàlla subhaanahu wa taala dafa farataal ci seen kaw sarax muy azaka boo xamante ne dañ koy jëlee ci seen way ñi am ni ñu di ko delloo ci seen way ñàkk ñi kon niñ ko gise woon bu boobaa loolu moom mooy wax ji moo tax imaam al-Buxaari rahimahullahu taala indi xadis bii ci bunt bii di leeral ne ñi ñàkk ñi ñoom bu boobaa ci dëkk ba ñooñu la ñuy génne ñoom ñoom la ñuy jox azaka Euh, bu fekkente ne ña ñàkk amatuñ foofu wala boog képp koo xam ne dañ ko war a jox asaka amatu fa bu boobaa dañ koy daal di delloo ci ñi nga xamante ne maanaam dañ koy daal di génne ci dëkk bi yóbbu ko ci yeneen dëkk naka noonu gisoon nañ ci baabu salaatil imaam wa duwaa'ihi li saaxibi sadaqa bunt bi nga xamante ne moom mooy jullig limaam maanaam imaam bi noonu lay maanaam ah, mooy li muy tekki julli googu mooy ñaan bi maanaam ñaan gi muy ñaanal borom sa asaka maanaam ak borom bi subhaanahu wa taala bi mu naan xuz min amwaalihim sadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum na nga jël ci seen am alal ji sarax maanaam azaka boo xamante ne daf leen di daf leen di laabal naka noonu daf leen di sellalee moom daf eh, dañ cey jaare di selle danga nga cey di leen sellal te nga ñaanal leen ndax sa ñaan inna salaataka maanaam ndax sag ñaan da da leen di dalal mu indi ko ci buntu bi maanaam ngir leeral ne eh, loolu du woon rek jagle yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye képp koo xamante ne imaam nga rek day daal di nekk eh, lu daal di yelloo ci yow ñu gisoon ci xadis sayidna abdullahi ibn abi awfa radiallahu taala anhu eh, moom mu ne kaana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ida ataahu qawmun bi sadaqatihim qaala اللهم صل على آل فلان فأتاه بأبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفا رضي الله عنه مؤمن ينتبه صلى الله عليه وسلم دفع وحنا مام دفع دان دفع سوشن قرآن عند الأزكاة دفع دان وحنا اللهم صل على آل فلان ما نام مام دان دفع دان جلي تموم ما نام جلي تموم قوغنا مو نيانا قو لولو مجحن دانك مام لا أبو أوفى نيوه رضي الله تعالى عنهم ومولانا وحنان اللهم صل على ال ابي اوفا يالا نغي جولي تي نانيو كي خامن موم موي ابو ابو اوفا رضي الله عنه لا غيسون نان تاميت با ما يستخرج من البحر بنت ليغا خامن تاني موم لا ني غيني تي گيج تي واخون نان ني مبولم ليغا خامن تاني موم لا ني غيني تي گيج لولو ازاكا دو تي ام manam ngir ne borom bi subhanahu wa taala dafa teqal diggante géej ak jiiri manam géej gi moom dafa joyal mbooleem li nga xam ne moom moo ci ne jiiri ji dafa tënk lépp loo xamante ne moom moo ciy génne moo tax loo xamante ne dañ kaa jëlee ci géej comme niñ ko gise woon tey te dinañ ko gis ci maadini insha allahu taala su fekkente ne tey masalan dafa am pétrole wala boog gaz wala boog mu am yeneen xeeti eh, ay ay ay ay ay ay or or wala boog ay yeneen ay uranium wala yeneen ak yeneen yoo xam ne eh, li maanaam lu mën a nekk rek ci biir géej gi maanaam li nekk ci biir géej gi loolu kenn bu ci génne asaka li nekk ci jéeri ji ci la ñuy génnee asaka eh, loolu ndax ne li nekk ci géej bi subhaanahu wa taala moo ko mayee noonu maanaam loolu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko noonu la méddum géej daganee maanaam amul lenn luñ ciy tere naka noonu méddum jiiri nekkee lu xaraam naka noonu comme ni nga xamante ne rëbb rëbbum géej maanaam te moom mooy lu ñu nappe ci géej gi indil ko ki aj loolu dagan na mu lekk ko waaye bu dee lu ñu rëbbee ci jéeri ji loolu du mu lekk ko maanaam kon loolu moom maanaam géej ak jéeri dafa daal dañoo daal di wute rek maanaam loolu borom bi su boppam moo ko def subhaanahu wa taala ñu gisoon ci wax ji sayyidina mawlaana abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma doon wax naan Euh, ambar bu euh, rikaas maanaam dinañ gis lan mooy euh, rikaas mooy ak ndéncin loolu da ak wala ak wala ndëxanteef loolu daañ ko gis insha allahu taala mu ne lool de mbir la moo xamante ne huwa shay'un dasarahul bahar maanaam géej gi maanaam moo ko tënkoon téye woon ba pare sànni ko maanaam loolu la rek comme ñu gisee tamit waxu alxasan al basri rahimahullah moom mu wuute comme ni nga xamante ne ak ijmaaw yéen maanaam ñeneen borom moom rahmatullah maanaam moom mu nekk wax joo xamante ne wax ju beru la muy la al ambar ak maanaam ambar moom mooy ambre maanaam ak euh, wurus maanaam ak kii yi nga xamante ne mooy euh, lu-lu moom mooy euh, comme corail yi wala perle yi yooyu nga xamante ne ñooy jógee ci géej gi yooyu yëpp mu ne xumus da cee am waaye dara amu ci maanaam am na azaka wala luñ ci génn war a génnee joxe ko waaye dara amu ci muy juróomeel bi waaye nag loolu mu ne imam al-Bukhari daan ne nag yenent bi daal sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa innama jaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi rikaaz al-xumus laysa fi alladi yusaabu fi lma maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daal li mu wax ne moom xumus am na ci mooy li ñu doxin ci suuf si waaye nag li nga xamante ne moom mooy li ci géej gi moom li nekk ci géej gi dañ ko fay fekk mooy trésor ya fay nekk wala wurus yi wala yeneen ak yeneen loolu dara amu ci gisoon nañ ci xadis Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu taala anhu muy nettali ñaari nit yoo xamante ne dañoo bokkoon ci ngir banu Israël kenn ki ñëw ni moroom mi dama bëgg nga abal ma euh, junni diinaar yoo xamante ne dama la koy àbb mu ne ko waa wutal ku ko seede mu ne ko ah loolu nag ku la seedeel nag dëgg-dëgg man nag mënuma la koo indil waaye nag man seedeloo naa la yàlla maanaam yàlla daal laa def muy suñu seede mu ne ko baax na comme que yàllaay suñu seede rek baax na demal. waaja nag daal di dem bi mu demee moom bëggoon a indiwaat junniy dinaar yi waaye xamul nu mu koy indee ngir ne daa wër a wër a wër a wër ji maanaam euh, gaal bu mu war wala boog batu bu mu dugg wër na ko wër ba sonn amul mu daal di mujj jël benn bant maanaam euh, mooy dattu garab tronc moom la jël daal di koy bënn ci biir daal di ciy dugal junniy dinaar yi daal di koy fattaat daal di koy teg ci kaw géej gi ne euh, ba pare boole ko këyit ne yow borom yow mi ma abaloon ngir yàlla yow daal fi mu toll sa junni diinaar ngoogu boo ci jotee mu ngi noonu waaja nag yàlla xiirtal ko moom it mu daal di euh, bëggoon maanaam mu daal di ñëw ci géej gi bi mu ñëwee ci tefes gi mu gis bant bi mu daal ni ah lii de mën naa koo jël dégg nga daal koy dimbalee sama maanaam dem jox ko matt def ko ay matt jox ko sama njaboot ba mu demee xar ko gis ca junniy diinaar ba pare gisaale ci kayit ga maanaam euh, loolu ngir ne maanaam di jóge ci géej gi. voilà loolu tamit di tegtale wéet wéet maanaam nit ki maanaam euh, wéet gi muy wéetal borom bi subhaanahu euh, wa taala ak wóolu gi nga ko wóolu am solo gi nga xam ne noonu la amee solo waaye tamit imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ngir leeral ne li jógee ci géej gi amul lenn luñ ciy joxe asaka wala yu mel noonu ngir ne bant boobu li nga xamante ne moom la nit ki jël euh, di ko jariñe maanaam def ko maanaam mooy daal alaakulli xam ne liy jógee ci géej gi kenn moomu Euh, liñu foré ci géej gi mëno ne ki di ko mom allahumma bamu dess nga gis ci masalan turu kako mom wala bok euh wala yu mel non wala mandarga buy wane né li kat dafa réeroon te ki ci ci sangam la réere wala bok ci ñom ki dëkk bërëb sangam la réere wala yu mel non bu boba nak day daal yor benen atte mom moy atté atte lakkata luñu for atte bobu lay daal di yore euh, mu léegi imam al bukhari rahimahullahu taala daal ni babun bunte ngi ni في الركاز الخمس ما لم في الركاز تيم دخن تيفي الخمس نيا ما لم خمس أمنته خمس مموي جروميل لي خامتاني نا موم موي بوروم خام خامي كون نيوم رحمه الله عليهم دبونن تي نه الركاز موم الخمس مو تي ام ndexenteef nak li nga xamantene mom lañ koy wax moy lepp lo xamantene ci alalu jahiliya lañ koy wax budul lool duñ ko tuddé ricasse maanaam loolu tamit lu ma a bàyyi xel la maanaam li nga xamante ne moom la ñuy wax moom mooy ne ci jamono yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy jamonoy ceddo ga ñu njëkk ña nga xamante ne nekkuñu woon ci diine lislaam ñooñu bu ñu foree benn trésor maanaam tey nit ki bu foree trésor ah du jaaduwul nag mu naan masalan man damay wër trésor maanaam nekk koo xam ne day wër trésor ngir ne loolu boo ko defee mën ngaa def sa giiru dund doo mës a gis bi dara maanaam kon boobu xeetu ñàkk jot Eh, yàq sa jot lay doon léegi nag li nga xamante ne kon moom mooy li jaadu mooy maanaam lool day day nekk rek loo xam ne nit ki da ciy dal maanaam te loolu comme da ciy dal rek da ci yem loolu moom mooy bu boobaa dañ daan ko ah yow day juróomeel bi ngay joxe maanaam amul lenn amul kenn chartalu ko xam nga azaka yeneen yépp dañ ci doon chartal mu nekk juróomi mu nekk eh, eh, mu wër at bi wër waaye comme rikaas maanaam mbir mi trésor bi dañ cee yem Euh, bu boobaa dafay daal di nekk loo xamante ne doo xëy doo doo duñ kenn du la ko sartal ne faw mu wër at ngir ne euh, euh, li nga ci am noonu bénéfice bi dafa rëy rëyaay boo xam ne daa amandoo maanaam li nga daan xaar pour mu ñëw at doog a nga doog a am bénéfice bi bii paa moom da nga cee yem rek maanaam dal ci maanaam bu boobaa loolu moom mooy boobaa li nga xamante ne nag moom la ñu bàyyi xel ngir ne coono amu ci yi nga xamante ne coono da cee am pour nga mën koo am yooyu. un quarantième bi ngay joxe maanaam mooy euh, euh, mooy vingt cinq pour mille bi moom ngay joxe ngir ne na ngaa daj coono ngir mën koo jot waaye su fekkente ne comme lii moom da nga cee dal noonu mu nekk alal joo xam te ne da koo for rek daanaka bu boobaa loolu nag dañ naan la comme maanaam un cinquième bi ngay joxe maanaam boobaa euh, un cinquième mooy vingt pour cent maanaam boobaa vingt pour cent ngay daal di joxe dootul nekk ci vingt cinq pour mil dootul nekk ci deux pour cent waaye vingt ngay joxe. Euh, te mais nag benn joxe rek nga koy joxe euh, loolu li ci des nag yow yow yow yaa moom maanaam euh, mooy yeneen mooy mooy mooy li ci des yëpp yaa moom mooy yeneen quatre pour cent yi loolu mooy rikaas léegi nag li nga xamante ne nag moom la ñuy sartal tamit ci rikaas moom mooy ndëxanteef googu ndax faw mu nekk loo xamante ne day yëf yi jaahil yi lay doon maanaam moom mooy ne faw mu am màndarga bu lay wan ne lii kat ñi ko moom moom ñii kat ña ko fi def du noonu ay jullit ndax bu dee ay jullit ñoo ko moom rek dootul tuddati rika ci rikaas mais laqita lay tudd maanaam lu nu for lay tudd bu boobaa nag faw nga taarif ko maanaam faw nga yëgle ko at doog doog koo sañ a jëfandikoo maanaam bu boobaa at bi nan nga koy yëglee mooy danga naan man dey am na benn trésor bu ma for wala am na lu ma for ku xam nag képp koo xamante ne jàpp nga ne danga cee réer le woon wala am loo dencoon fenn wala ci àll sàngam am na loo fa dencoon te kat xamuloo lan la wala boog ci euh, suuf sii ma dëkk maanaam sama kër gii ma dëkk am na loo fi dencoon wala boog nga xam ne waaw maanaam daal euh, léegi nag bu boobaa mën nga ko daal di wax ba pare daal di wax ne lan la maanaam bu boobaa doo joxe benn précision bu ko defee bu amee kenn koo xamante ne moom xamoon na la mu fa dencoon moom daal di mën a wax ne ah lii la ni ñuy xamee ne nag lii kat ay jullito ko moomoon mu am turu maanaam ay turu yàlla nekk ci. wala boog baatu shahada yi nekk ci wala turu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci wala boog turu kenn ci xulafaa yi wala ñu mel noonu maam ñu daal di xam ne kat wala boog ñu ci ñu ñu ñu marqué ci loo xam ne day wane ni lii kat par exemple lii jullit ñi ñooy faral di defaree nii comme par exemple mu nekk loo xamante ne dañ cey tampon benn euh, juma wala yu mel noonu nga daan di ah, lii de ab jullite ko moom bu boobaa nag faaw da nga koy daal di yëgle am maa nag tey fu fekkente ne da ngaa mën naa nekk ci àll xamante ne yow yaa ko demoon di ko bay wala mën wala di ko gas wala boog nga nekk euh, nga demoon wala mu nekk ci sa biir kër maanaam ngay ngay gas rek faf yam ci ak yu mel noonu loolu yëpp wala ngay gas teen wala yu mel noonu rek nga daal ci yam loolu bu boobaa dañuy daal nga da ngay daal di euh, yëgle tey nañu xamee ne nag ay yéefir ko moomoon moom mooy masalan ay mbir yuy tëkkale kéefir nekk ci maanaam ak ay yenn euh, Euh, bopp maanaam marque yoo xamante ne wala ay bopp wala ay turu yenn xërëm yi wala yu mel noonu ak yeneen ak yeneen rikaas nag beneen mbir tamit am na ci solo moom mooy na doon alal rek li tax ñu koy tuddee rikaas nag baat bi ci jëmmi boppam moom mi ngi jugee ci rakaza bii tekki samp maanaam kon moo tax nga gis ne euh, xadis bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi naan sayd euh, dañ koo noddaloon ci fatxu makka mu ne summa ru'izat lahul anaza anaza summa rukkizat lahul anaza topp nag ñu daal di koy sampal anaza bi maanaam lool tamit nga gis tamit mu daal di alquran tamit daal di aw tasma'u lahum rikzan maanaam rikzan moom mooy euh, maanaam lu ñu samp maanaam ndax gis nga lenn ak taxawaayu boo xam ne dañ maanaam lu samp ci seeni mbir ñoom waaw wa kam ahlaknaa qablahum min qarnin hal tahissu minhum min aadin aw tasma'u lahum rikzan maanaam ñaata dëkk ngi nii ñaata réew lañu alal ndax dégg am nga di benn yëg-yëgati ci ñoom wala boobu nga gisati fi lenn lu ñu samp ñoom nga déggati fi lenn loo xamante ne samp nañ ko lu ñu samp la maanaam nga gis ne ñoom taxawatuñu maanaam nekkatuñu daal loolu kon moom mooy euh, rëkk sax léegi nag mu am li nga xamante ne euh, bu fekkente ne tamit masalan dafa am lu réer nit ñi for ko waaye xamuñu ndax ay jullita ko moom wala ay yéefee ngir ne amul benn léeg-léeg mu am ay mandarga yi jullit la nekk ci am ñeneen yi ay mandarga yi kéefir ci bu boobaa ni jàpp moom mooy dañuy jàpp ne te loolu mooy mazhabu bu jamaahir maanaam war ba jumhurul ulama ci xanafiye yi ak maalikiyye yi ak ñenn ci saafiyee ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne bu boobaa dañuy jàpp ne ay jullite ko moom parce que dañu daan mandarga yii am na mandargay kéefir am na mandargay jullit mooy ne alal ji alalu yéefir la woon ci départ waaye jullit ñoo ko mujjee moom loolu lay tekki ñi nga xam ne ñooy Shafi'i nag rahmatullah alayhim maanaam te mooy li gën a wér siw ci seen mazhab rahmatullah alayhim mooy ne dañuy jàpp ne maanaam ba tey mëneefu koo maanaam euh, bàyyi xel ci ne ay jullito maanaam ay jullito ko moom maanaam mëneef na koo jàppee mu nekk ba tey euh, rikaas bi nga xamante ne foofu xumus moo ci am beneen bi nga xamante ne tamit moo mat bàyyi xel ci wàllu googu moom mooy dafa am euh, ñetti maanaam dafa am leneen lu ñuy tuddee maadin maanaam maadin moom mooy li nga xamante ne euh, ci àddana la jóge àddana mooy loo xamante ne dafa sax voilà loo xam ne dafa sax loolu moom moo tax jannaatu àddanin maanaam ñu àjjana àjjana gu sax loolu lay tekki léegi nag li nga xamante ne moom mooy mm, maadin yooyu moom mooy mbel la li ko wutale rikaz nag loolu daañ ko gis léegi insha allahu taala ci bunt boobu te dinañ gis ne bokkuñu ay àtte moom ak ak ndax rikaz moom ñépp dëppoo lañ ci ne moom cinquième bi rek ngay génne cinquième boobu nag kan lañ koy jox loolu tamit boroom xam-xam yi wuute lañ ci rahmatullah alayhim ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaul xanafiye yi ak maliki yi ak ñoom dañu ne euh, wante loolu mooy li ëpp ci li gën a siiw ci xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne maadin maanaam lépp loo xamante ne euh, wala euh, maam ni ñuy jox xumus gi maanaam mooy cinquième bi mooy dañ koy jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi alquran do wax nan manam moy khumus gi ñoon lañ koy jox mooy waalamu annama ghanimtum fa inna lillahi xumusahu wa rasuli wa li qurba wal yatama wal masakin wa ibni sabil manam kon te kon khumus gogu ñoon lañ koy jox moy ñi nga xamantene ñoom lañ ko mëna jox moy yàlla ak yenen sallallahu alayhi wa sallam yàlla ak yenen tambi nak moy ñan manam mom moy Euh, lépp loo xamante ne moom mooy alal euh, mooy comme masalan euh, hôpital yi ñu war a tabax ak école yi ñu war a defar ak daa maanaam lépp loo xamante ne yëf yu bi la maanaam lool moo wala tëli yi ñu war a defar ak loolu mooy yàlla ak bi salaa alayhi maanaam kon loolu moom moo la léegi ñeneen ñi des moom mooy way jege ñaari yi maanaam waa ahlul bayt ñi nga xamante ne ñoom ñooy beneen bi ci des moom mooy al yataama njirim yi maanaam pauvre yi comme njirim yi nga xam ne dañoo ñàkk mooy comme orphelinat ak yu noonu Euh, wa wal masaakiin ak ñàkk woy ñàkk ñi wabni sabil ak ñi nga xamante ne euh, ay doomi yoon lañ maanaam mooy ñi nga xamante ne dañoo tukki nekk maanaam nekk ay doxandéem voilà mooy doxandee bi ñooñu ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooñu la ñuy jox euh, kon benn cinquième bi léegi nag quatre cinquième yi ci des nag bu boobaa ñi nga xamante ne moom ki koy moom mooy ki for affaire bi ki ko for moom mooy moo koy moom amma ñi nga xam ne ñooy fuqaha Shaafi'i yi nag rahmatullahi ñoom dañoo jàpp ne kii yor azaka te loolu maanaam gis-gis la ci xanaa Hanaabila yi rahmatullahi mooy ne ki nga xamante ne moom mooy yor euh, moom la ñuy jox xumus gi maanaam un cinquième bi ko génnee dañ koy jox ñi nga xamante ne ñooñu ñoom ñooy ñi ñuy jox azaka maanaam ñi ñiy jël azaka ñooñu rek lañ koy daal di delloo maanaam kon euh, te bokk na ci liy dëgëral ne ñi nga xam ne ñu koy jox maanaam mooy mazhabu jumhur li koy dëgëral mooy ne yenent bi sallallahu moom Seydina Omar radiyallahu anhu dañ koo mës a indil loolu dañ koo mës a indil benn waaye daa indi for lu toll noonu maanaam benn benn ci trésor yi maanaam for ko ñëw euh, bi mu ñëwee ñu jël mu jël benn maanaam cinquième bi juróomeel bi mooy vingt pour cent yi daal di koy commencé séddale bi muy séddale séddale ñenn ñu bëri ñu fa ne waaye nag mu daal di ciy joxaale ki nga xamante ne moom mooy kii ki yor borom maam ki ci for ndax ki ko for kooku ñàkkatul voilà loolu moom moo tax tamit ne un boobu ci yan chart lañ koy joxee masalan tey fuqaha wax maaliki yi mu wutal nañ ko charte boo xamante ne moom mooy su fekkente ne dangaa for mbir mi ba pare gis ne alal ji euh, da maam am na feneen fu mu war a dem maanaam foo xamante ne fu urgent la maanaam dépense bu mag dalay xaar maanaam bu boobaa dootu ko génne maanaam ñoom charte boobu lañ ko ajal Ah, waaye ñeneen ñi moom dañoo jàpp ne ala kulli xaalis moom faw nga génnelee rek la ci des it maanaam euh, maanaam faw nga génne un cinquième euh, mooy lii euh, ci rikaas ak maaden léegi nag maaden insha allah taala dinañ ci ñëw ci leeral li ko wutal ak rikaas ci wax ji nga xam ne moom mooy ñëw ci kanam mun a waqaala malik muy imaamu daarul hijra malik anas wa ibnu idris boroom xam-xam yi wuute nañ kenn la ci ñoom ñaar rahmatullah alayhim ñii ne Abdullahi ibnu Idris al awdi la euh, ñeneen ñi ne li gën a siiw te loolu mooy li gën a maanaam mooy al imam Muhammad ibnu Idris ash-Shafi'i rahimahullahu taala maanaam ñoom ñaar ñi muy imaamu Malik ak imam euh, ash-Shafi'i ñoom nee nañ arrikaazu boo bëggee xam lu mu tekki mu ne mooy difnul jaahiliya moom mooy euh, ab suulu ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaahiliya yi mooy jamono ceddo yi fii yi ci li néewam wa kasirihi ak li bëreem alxumus moom la ñuy génne mooy un cinquième loolu nag lii moom mooy waxu ñi nga xamante ne moom mooy Shaafi'i yi lii waxam ji fil qadim la maanaam du wax ji nga xamante ne moom mooy fil jadid maanaam ci lu bees te li mu wax ci lu bees nag loolu mooy mazhabu Shaafi'i yi maanaam moom mooy lan moom mooy ne ñoom moom dafa jàpp ne dafa am nisab maanaam euh, ndax laaj bi moom mooy lan ndax boo xoolee mazahib bi nii lañ tëddoo ci mbir mi imaam maanaam xanafi yi ak maaliki yi ak xanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàppale ne rikaas maanaam liñ ciy joxee xumus gi euh, euh, maanaam nisaab bi dafa am nisaab maanaam faw xool ban mooy lan mooy seuil imposable bi bu boobaa dañ naan su fekkente ne ah, bu boobaa dañ naan amul nisaab ñoom loolu la ñuy wax maanaam fuqaha xanafi um, ak maliki ak xanaabila yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne amul lan amul nisaab ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maanaam mooy loo mën a for valeur bu mu mën a am un cinquième maanaam amul amul nisaab alors que Shafi rahmatullah alayhim ñoom dañ koo jàppee comme li yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yor deux cent dirham yooyu laa budda mu mat ko euh, bu ko matee ci ngay doog a génnee azaka ngir ne ñoom dañoo jàpp ne dañ koo jox àttee azaka boo xoolee xaqiiqatan loolu moo wutee mbir mi ñoom dañ ko jox àttee azaka loolu moom moo tax ñoom it dañuy jàpp ne li ngay génnee azaka maanaam ci rikaas bi moom mooy or ak xaalis parce que loolu rek mooy li nga xamante ne ci azaka loolu ngay génnee maanaam su doon leneen la doo génnee azaka alors que ñeneen ñi des dañoo jàpp ne ahan kay faw mu nekk du or ak xaalis kese faw mu nekk lu mën a doon lu ne dañ ciy génnee azaka kon fofu la fooqa Shaafi ak Maalik ak ñeneen ñi wuté rahmatullah alayhi mu ne wa laysal maadinu waaye al maadin nag maanaam mooy mbell mooy mbell moom lañ nane min min wala euh nan lañ leen di tuddé moy yi ñi yi ñi gis léegi ci teen yi teen yi moy teen yi tamit loolu laysa bi maanaam loolu nekkul bi rikaas yin di loolu ak rikaas du benn rikaas lan moo ko wutaleeg maade mooy ne rikaas dañ ko fay def maanaam ay nit ñoo ko fi def maadin yàlla moo ko fi def naturellement maanaam ay ressources naturelles lañ loolu moom moo wutale maadin ak rikaas euh, léegi euh, li nga xamante ne moom mooy bu bu dee boobu la mooy mbell gi nga xamante ne daf fee nekk euh, loolu nag mooy lépp lu ñuy gis rek faw nag dafa am rek ñoom ñaar lu ñu bokk moom mooy mu nekk loo xamante ne dañ koo denc amma fuqaha u maliki ci ak xanaa bi lay rahmatullah ñoom charte luñ ko mu nekk lu ñu denc maanaam charte luñ ko mu nekk lu ñu suul loo xamante ne bu say bët du ci tegu faaw nga gas ko pour gis ko déedéet maanaam tey buñ demoon ci àll bi gis dara loo xam ne daa tegu ci kaw noonu rek benn euh, waxande wala yooyu ñu ubbi ko lépp di oor nga jiri ko xool ni lépp or la maanaam loolu ñoom dañ koy daal boole ci rikaas yi maanaam loolu ñoom charte luñ ci mu nekk luñu ñu lu ñu lu lu ñu suul léegi nag li nga xamante ne li nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, euh, kon ñeneen ñi ci des muy xanafiyee ak saafiyee rahmatullah alayhim ñoom dañ cee saatal mu nekk lu ñu suul beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy ricas tamit am na beneen mbir mu mu maadin buñ buñ ñoom borom xam-xam ne tamit rahmatullah dañ ko wuutee dañ cee wutee nan lañ koy génnee li asaka ndax ñi nga xamante ne moom mooy bu dee rikaas ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne ku ko mënti for un cinquième bi lay génne loolu moom ñëpp d'accord nañ ci donte am na ci yu ñu wuute rek te loolu lu mat a xel la moom mooy tey masalan bon wala boo am na ay teqantal moom mooy masalan tey bu fekkente ne euh, euh, damaa ñëw fekk ko ci foo xamante ne euh, tey masalan tey bu bu ma ñëwee sama kër sama kër ma ne sawaay demal nga gasal ma foofu ab teen ngay gas teen bi daal di gis ab trésor fekk man moom ma ko woon xaw ma woon xaw ma ko woon yow maanaam da nga kaa découvrir man xaw ma woon ni am na trésor bu ca nekk kan moo ko moom man maa ko moom man mi nekk sama kër walla yow mi doon gas teen bi yaa ko moom fenn rek lañ dëppoo. mooy ne su dee dama ko dama le ne gasal ma ko ndax am na trésor ju fi ne dama bëgg nga gasal ma ko nga gisal nga xoolal ma ko bu boobaa maa ko moom waaye su fekkente ne yow da nga doon gas yam ci yow yaa ko moom loolu mooy waxu li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim maanaam ci kaw loolu euh, état bi du ko moom ci buntu lu mel noonu état bi du ko moom mais bu dee fekk ci kaw état bee koy moom maanaam masalan bu fekkente ne wala boobu mu nekk ci suuf soo xam ne kenn moomu ko maanaam boobaa état bee koy moom bu nekkee ci kaw mais bu dee nit ki day gas ci suuf détail la boo xamante ne am na ci mbir mi euh, ñi nga xamante ne tamit beneen mbir bi nga xamante ne mat naa bàyyi xel ci wàllu rikaas boobu ne kan moo ko euh, euh, ba mu des ñenn ci xanaa bi la ñenn ci xanaa bi lay rahmatullah am dañ naan fi suuf si suuf si ki mu nekk si ki mu nekk suufam kookoo ko moom maanaam loolu la ñu wuutalee léegi nag mu des ne rikaas ak maadil bokk na ci ne xanaa xalaf yi rahmatullahi ñoom dañoo jàpp ne rikaas ak maadil benn la ñoo bokk àtte sauf que am na fenn fu ñu wutalee ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam ñoom ñooy fa maaliki ak shafii rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne or ak xaalis maanaam wurus ak xaalis kese moom la ñuy fekk ci muy maadin bi muy mbell gi wurus ak xaalis kese moo tax ñu wax génnee bu ma ko fekkee ci ci suuf si wala xorom wala xorom yooyu yëpp bu fekkente ne xorom si ci kaw la ne loolu bokkul loolu bokkul àtte du comme ni ko gise woon mais su dee xorom si ci suuf la ne bu boobaa mu mën koo génne ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp maadin la tudd waaye nag bi tax muy génne azaka mooy or ak xaalis loolu mooy waxu Maliki ak Shafi'i rahmatullah ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanafi rahmatullah ñoom dañ ne déedéet du loolu kese. faaw ñu bàyyi xel lépp loo xamante ne dañ naan mbir yi dafa am ñaar li nga xamante ne tey euh, dafa dëgër maanaam mooy jaamit loo xamante ne ndox la dafa ndoxe wala boog loo xamante ne lu ñuy laal la comme gaz yooyu xam ne noonu lañ mel waaye yi nga xamante ne dafa dëgër mooy comme weñ euh, wurus xaalis ñoom calcium kii kii euh, naka ay phosphate aluminium yoy ak zircon ak charte bi moy ñun pour nga il faut que mu bolé ñaar mu bolé nek lu ba tamit buñ ko ci safara ci lay comme comme euh, comme fer comme euh, comme euh, cuivre ah comme aluminium comme yooyu nga xamante ne bu ñu ko lakkee ci safara bu ñu paree day daal taxaw nekk nekk lu ñu mën a tax jëmmal léegi mu ne donte xaalis la donte il faut mu rax dara pour mën pour ñu mën koo jëmmal ndax xam nga xaalis xaalis argent argent doo ko lakk noonu noonu kese kese kese mu taxaw de faw mu am lu mu àndal pour mu mën a taxaw loolu moom moo tax ñoom ñu ne kon lépp loo xamante ne dafa yor àttey or ak àttey xaalis ci lu ñu mën a taxawal maam ngir ne ko lakkee ak safara day taxaw. loolu ci lañuy tuddee loolu boobaa ci la génne génnee euh, euh, asaka ji ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u xanaa bi lay rahmatullah ñoom ànduñ ci loolu ñoom dañ ne lépp lu ñuy génnee ci suuf si ci kaw loolu ñoom or kii maanaam pétrole ak gaz day daal di bokk ci li ñu war a mën a génnee asaka te loolu nag dañ ciy tegtaloowee ci alquran bi mu naan yaa ayyuha alladina amanu anfiqu mimma kasabtum wa mimmaa axrajnaa lakum minal ard eh, yéen ñi nga xam ne gëm ngeen di dëggu na ngeen di génnee alal ji di di joxe azaka ci li nga xamante ne moom ngeen di fàggu muy warudu tijaara yi ak lépp li nga xam ne moom mooy génnee ci suuf si maanaam bu boobaa dañuy daal di gis ne kon wax jooju day daal di gën a dëgër te alal jooju rek rek muy gën a ëpp muy ëpp doole jeneen alal ji comme niñ ko xamee maanaam pétrole bi ak euh, gaz bi ak yi mel na ñoom. ñoom ñoo ëpp doole léeg-léeg kon euh, sauf que bu nekkee ci biir maanaam bu nekkee onshore kenn du ci génne dañ ko ci génne su nekkee offshore kenn du ci génne azaka euh, beneen bi ci des nag moom mooy ne euh, doonte am na benn wax ci xanaabila yi rahmatullah alayhim loolu tamit mu préciser ko am fuqaha xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom wuute nañ foofu ñoom dañoo jàpp ne ñenn ñi ci ñoom dañoo jàpp ne. Euh, li ñu mën a wax moom mooy su dee il nga dugg ci biir pour génne ko loolu bu boobaa da ngay da ngay mel ni comme asaka maanaam euh, un quarantième bi ngi génn su fekkee ne nag maanaam da nga koy fekk ci kaw géej gi noonu rek bu boobaa da koy daal di génneel un cinquième maanaam kon loolu moom mooy différence bi maanaam bu bu dee foofu nga yóbbu say machine ñu daal di teg puiser def ay ci traitement nangam nangam yooyu boobaa da ko génneel un quarantième waaw ah, dégg nga loolu tamit euh, euh, loolu tamit lu mat euh, bàyyi xel la léegi mu ne waqante dëgg-dëgg xaala wax naan nabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam fil maadini ci maaden bi mooy mbell gi kooku jubaaru day daal nekk loo xamante ne lu neen la loolu daan ci ñëw léegi moom mooy mbel dañ koy neenal maanaam mooy tey bu fekkente ne nit ki daa am benn maanaam benn mine boo xamante ne euh, nit ñi dañ ciy liggéey te it mu teg leen ci circonstances yi jaanu ci conditions yi jaadu yépp mu teg leen ci jël mesure de sécurité yépp terewul mine bi daanu ci kaw ñi doon liggéey bu boobaa day daal di neen maanaam mooy lan mooy amul indemn dara lu mu war a joxe amul indemnisation amul dara. loolu moy fil maadini jubaru ba pare daal di waaye woo fil al xumus manam nak ci rikaz manam lu ñu xam ndëx ndëxanteef la ndenceef la koku nak amna na alors que fuqaha xanafi rahmatullah alayhim ñom dañu jàpp ne ben la loolu daañ ñëw mu ne wa akhazati jël jàpp jël na umar ibn abd alaziz radiyallahu anhu min al maadin ci mbell yi min kulli mi atay ci ñaar téeméer yu nek xam sa tan juróom manam mom moy lan moy comme asaka comme azaka un quarantième maanaam cinq sur deux cent mooy loolu mooy comme azaka moom noonu la ko doon noonu la ko gisee woon comme ni ñu ko waxee léegi ne euh, xanaa bi lay rahmatullah am na ñu ko ci gisee noonu waaye wa qaala waaye ñeneen ñi ci des maanaam ñoom dañoo jàpp ne xumus la waaw mu ne wa qaala xasan te mooy albasar rahimahullah mu ne maakaane lépp loo xam ne am nekk na min rikaas di rikaas muy lu ñu ndëxëñ fii ardil xar bi ci soufas xex xar fa fihi lolou de la tay am mom moy al alxumus moy juróomeel manam ngir ne ay yefere ko mom man waaye wa ma kana lépp lu nek min ard silmi ci soufas jàmm fa fihi la tay am moom mooy azakaatu azaka lolou nak tekantal boobu comme li alimaam Ibnul Mundir wax nee naa Xasan al Basri rek la xam nga ku ko wax alhamdulilah manam amul tekantal bu ci am haqiqatan boko fekke ci rew yefere mu nek ci rew julli ñi ñoyam

mu ne wa in wajadat su fekkee wa in wajadta soo fekkee nag soo dajee al laquta al luqata lu ñu for fii ardal adu bi ci suufas noonu si fa arrifaa na nga ko yëgle maanaam mooy alal joo xam ne xam nga ni alal ji alalu jullit la waaye ci suufas noonu gi nga ko fekkee kooku da nga ko war a yëgle wa in kaanat bu fekkente ne nekk na minal adu ci noon bi fa fii xaa la cay war mooy alxumusu juróomi maanaam mooy lan mooy ne su fekkente ne ab yéefira ko moom alal ji maam tënk gi loolu la su dee alal ji alalu yéeféer la mu leer ne alalu yéeféer la bu boobaa moo mook guerre moo liñ gañe ci guerre ñoo bu boobaa un cinquième ngay joxe su dee alal ji alalu jullit la bu boobaa danga ko yëgle soo ko yëglee te matul bu boo paree asaka nga ci génne mu ne wa qaala wax na baadu naas lenn ci nit ñi lii nag ku mel ne al imam ibnu tiin dafa jàpp ne imam abu xanifa lay wax rahimahullah waaye mën naa nekk imam as-sawri wala imam al-awzaa'i rahmatullahi maanaam moom daf ne almaadinu mbell gi rikaasul mo mooy rikaas la mis la kéem difnil jaahiliyati maanaam lu ñu eh, ndëxëñ maanaam eh, suulu ñi nga xam ne mooy jamonoy ceddo yi lii nag boro lii Euh, lu tax mu ne li annahu ndax kat yu xaalu dañ naan arkaza euh, maanaam samp na almaadinu mbell gi maanaam denc na ko maanaam mooy loo xam ne dañ koo denc ci suuf isa xaraja su génnee minhu ci moom shay'un dara maanaam bu boobaa maanaam daf ko génne maanaam boobaa dangay gis ne arkaza dootu tekketi samp na waaye la lay tekki mooy génn na sempi na voilà sempi na li nga xam ne moom mooy Euh, mbell gi xiila la woo ñu ne ko nag mu ne xiila wax nañ la woo ñeel ko ne xat dëgg-dëgg yu xaalu dinañ wax li man ñeel ki nga xam ne ne wuhiba joxeef na la woo joxeef na ko la woo ñeel dara shay'un dara aw wala boog rabixa dafa tonawu ribxan ak tonawu kasiran bu bari aw wala boog kasuram mu bari samaruhu ak meññam dañ naan ko arkasta maanaam taxaw nga lu dëgër maanaam moom mooy sempi nga am nga loolu lañ koy wax tamit ne ko déet parce que moom maanaam lii lan la mooy xanaf yooyu rahmatullah lu jàpp comme wax imam Abu Hanifa rahimahullah mooy lan mooy ne ak rikaas ñoo yem maanaam maadin ak rikaas lu tax parce que moom dafa jàpp ne euh, yëpp trésor la ñeneen ñi nag dañ ñu déedéet li fi yàlla def naturellement wuute la ak limite ki moomoon denc ko maanaam loolu ba tey wuute na ndax li nit ki boobu denc ko mën naa nekk ay pièces mën na nekk jaas yi mën na nekk leneen ak leneen waaw mën na nekk ay kaas ay pot yoo xam ne day am mën na nekk sax ay tableau ay tableau d'art ay yeneen ak yeneen yooyu yëpp mën na ko ne yooyu yëpp buñ ko xoolee tey benn waaye bu foroon benn tableau d'art dégg ci suuf ni gis ko daal ne eh, li tableau d'art la eh, gars yi xool daal di yóbbu ko ci gaa yi koy natt. xool ko ñu ne ko lii kat day boo ci lii lii day lii le minimum bi nga ci mën a am mooy vingt millions d'euros waaw li moom mooy le minimum bi nga ci mën a am am kooku day daal di mën a génne ñaata 4 millions lay daal di joxe maanaam bu ko jaayee day daal di joxe 4 millions waaw daal di daal di jël 15 millions yu ci des waaw 16 waaw 16 <laughs> waaw jël 16 16 <laughs> millions ci des. waaw affaire am tàmbale baax kon ki nga xamante ne kon euh, moom ñoom loolu lañ ko gisee léegi loolu nag ñoom dañoo gis ne benn la alors que du benn maanaam ndax ñoom dañ ne arkaza arkazal maadin maanaam li muy tekk mooy génne na mbell gi kon benn la alors ñeneen ñi moo tax mu ne dañ naan ko nag dinañ wax képp ku ñu jox dara wala mu am. bénéfice bu rëy rëy wala dara rek dañ naan ko arkas la baatu rakas la maanaam baatu rikaas boobu la ñuy jëfandikoo kon dañuy daan gis ne du du benn su ma topp naaqata mu daal di safaanoo wuute wa mu ne laa ba'sa aayul an yaktumahu ci mu nëbb ko falaa yu àddiyee bu ko defee du joxe alxumusa un cinquième bi manam fi motax imam Badruddin al-Ayni rahimahullah daan ne imaam al-Bukhari fi dafa wax ak imam Abu Hanifa wax jo xamne yello wul ñu wax ko nit simple waxuma la imam bu magi ni manam euh xawna ci manam ci ci ni mu waxee daal xaw mer manam alors que imam al-Bukhari lim wax len rek la moy ne daf doon rek leral ne wax ji ci jëmmi bopam buñ ko xolé dafa am lo xamantene dalilul iltizaam la ak dalilul iltizam loolu kessela moy tektal bo xamantene nit ki saa yu waxee benn wax dañ naan ko léegi nañ xool conséquence wax ji yëpp maanaam ngir dëgëral ne Ma'âdine ak Rikaaz du benn loolu rek la woon mooy dana ko lan parce que moom dafa ne loolu moom ba pare daan ne euh, boo dencee garaw te bañ a joxe asaka ji mooy nit ki su ñàkkee nekk ci situation yu difficile mën na def loolu maanaam kon bu boobaa dañu xam ne kon léegi mbir mi nekkatul Ma'âdine nekkatul mbell Hmm? nekkatul mbell ndax mbir miir mooy loo xamante ne fii lay ne rek naturellement la fi nekk booy gas di gis or bi mu fi mu toll buñ ne fii am na or maanaam yow saal bii nii rek bu amoon or fi mu toll daanaka maanaam sa àdduna yëpp mën ngaa bañ a defati dara waaw ndax booy génn da ngay génne rek di joxe alors que bu dee lu ñu denc du bëri du rëy génn rëy ji dégg nga mu ne qaala bil isnaadil muttasil kitab la hadathana Abdullah ibn Yusuf moy at-Tinnisi mu qala akhbarana malik moy Imam imaam mag bi an ibn shahab az-Zuhri an sa'id ibn al-Musayyib wala Musayyib rahimahullah taala wa an Abi Salama ibn Abdurrahman ba batay mu jelo ko tamit Abu Salama ibn Abdurrahman moy ibn Awf ñom ñaan ñu bok ci fuqaha sab'a rahmatullah alayhi wa an Abi Hurayrata radiyallahu taala أن رسول الله نك نور يا الله صلى الله عليه وسلم قال أنا العجماء آه، مي باي مي العجماء باي مي دنيا نو العجماء غير ندنيو parce que عجم مو مي كو كود وح وح جلير عرب مي كو وح وح جلير عج باي ما باي ما ما نام غير نبهم بهم جنك في موتا مي وح عبد الله لمو ما نام باي ما باه باي ما وح عبد الله موتا عجماء موتا عربي كيف كو خبر جنك مي خاله ينوي nga xam ne seen wax du ñu leer ak bàyyi ma yi ak ñooy picc yeeg ñooñu ñëpp ñoom ba ñoom àjjuma lañ leen di wax maanaam lu tax ngir ne seen wax da leer ñooñu nag maanaam mooy duñ ay responsable moo tax mu ne jubaarum ñooñu dañuy neen maanaam ñooñu loolu lu muy tekki moom mooy seen jëf ji day neen maanaam loolu lay tekki maanaam mooy ne tey bu fekkente ne bàyyi ma mais yëpp zahir bi mooy ne amul amul benn condition waaye euh, am na ay condition maanaam mooy tey nit ki bu fekkente ne dafa yor aw fas fas wi génn wala ay nag wala ay xar ñu génn dem yàq bu boobaa su fekkente ne fu ñu ko waroon a takke la wala yeew ko masalan bu dee bëccëg gi eh, eh, ñu ñu ñu ñu bàyyi ko mu dem yàq te walla guddi gi wala ne maanaam daal condition yu waroon a tax ñu waroon koo jàpp ñu bàyyi ko mu dem masalan dem ruuri toolu jàmbur te ñu waroon leen a sàmm waroon leen a surveiller ñu bàyyi leen loolu bu ñu ruuree toolu jàmbur dañuy dañuy alors que su fekkente ne nag euh, euh, euh, dañoo rëcc par exemple dem ruur toolu jàmbur yi waajo du fay dara waa wala par exemple ñu tëb mbëkk oto wala yu mel noonu oto bi pare-brise yi toj yooyu du jàq duñu du wàññi dara maanaam tey fas wu rëcc di tëb di tëb di dal ci benn oto oto bi pare-brise yi yàqu duñ fay dara na ko noonu bu bu bu bu fekkente ne fas wi par exemple mais bu doon dañ koy dawal waa ji ci boppam moo ko dawal maanaam tey ko ngir yàq dara mu joggi ci bu boobaa day waa ji day fay parce que bu boobaa day mel ni fay euh, fas wi outil la rek mi ngi mel ni rek mu jëloon ab jaase mu toj waa affaire bi yëpp am na ay teqantal ci nekk nag maanaam du wax ji du lu général mu ne wal bi teen itam jubaarul dafa maanaam kon bu boobaa pour ñu dellu si waat ci. bàyyi ma bi bàyyi ma boobu kon moom su demee maanaam su reyee nit sax nit ki du indam duñ ko indemniser ci loolu maanaam nag woo xam ne masalan dafa rëcc wala yu mel noonu euh, romb ay nit maanaam mer mbëkk mbëkk ñenn ñi ñenn ñi ñenn ñi gaañu wala ñeen ñi dee hospitalisation beeg yi ci aju yëpp kenn du ne waaju parce que sa nag la dañ koy day mooy fay da ngay fay déedéet wala indemnisation yi parce que rey na kii yooyu yëpp kenn du ko wax maanaam loolu lañ ci jublu. mu ne wal biiru euh, bu dee teen itam jubaarul day day neen maanaam mooy ne teen tey boo gasee teen mais loolu tamit dafa am condition mooy tey su dee masalan dangaa gas teen ci àll bi wala nga gas ko ci sa biir tool wala sa biir kër yooyu yëpp nit ñëw daanu ci dee wala lu dara dal ko bu boobaa Euh, loolu itam day neen maanaam amul dara lu ñuy laaj waa kenn maanaam loolu garantie du ci dugg maanaam kenn du ne ko sawaay indil say responsabilité civile nangam nangam yooyu amu ci lu tax parce que fi nga ko def la ko nga ko war a def mais alors que tey nit ki bu gasoon ak kàmb wala teen gas ko ci digg yoon bi fi nit ñiy jaar te ñagu ko maanaam wutalu ko pund bu boobaa ah, euh, bu boobaa nag ku ci daanu pasalan guddi gi ku ci daanoo yooyu noonu waa ji mooy fay waa ji dañ koy dañ koy laaj mu indemniser ak yu mel noonu bu gaañoo wala bu ko dara dalee ainsi de suite mu ne wal maadinu mbell yi tamit jubaarum noonu lañ mel maanaam day neen mooy liñ doon wax sànq booy liggéeyloo ay nit ci ay mine mais fekk jël nga sa responsabilité condition de sécurité yëpp nga koo sàmm affaire bi jékki-jékki màbb seen kaw wala yooyu noonu doo fay dal doo def dara voilà nit ki tamit suy gasloo nit teel itam. condition wala mu koy liggéeyloo euh, loolu tamit maanaam mooy mu koy liggéeyloo maçon bi par exemple wala mu koy tabaxloo kër comme ni wala yoon mel na ay mais condition yëpp na jéem na sàmmonte condition de sécurité yi xëy na am wala leneen am wala xëy na nangam dañoo technique moo am wala yu mel noonu comme ni ñu koy waxee yooyu noonu après amul leen dara lu ci fekk waa ji ko moom waa moom mbiri voilà lépp jubaar la parce que tamit ñuy jël nit ñi di leen tek ci seen kaw ay responsabilités yu ñu àttanul voilà motax tax yooyu yëpp day neen euh, bu dé mbell tamit non la demee mu ne nak nag wafir rikaase lii tax bokku na ci li tax imaam bukhari indi ko moy wafir rikaase li nga xam nak nag la moy dencu al jaahili koku nak al khumus koku juróomeel bee ci war lan motax maanaam moo li moo jumhuurul ulamaa rahmatullaahi moo tax wax na ne wa qad qaala nabi sallallaahu alayhi wa xumus wal ma'dinu jubaaru wa fi rikaazil xumus bu fekkente ne yeneen bi dafa leen a teqale mooy ne ma'din ak rikaaz duñ benn que conjonction bi mu teg seen diggante ba pare dafa leen a wutale moom moom moo ci am Allah, alam hadis bi mal bukhari rahimahullah nako ko hadis numéro 2355 ak 6912 ak 6913 imaam Muslim indi na hadis numero 1710 imaam Abu Dawud indi hadis numéro 3085 ak 4593 imam at-Tirmidhi nag hadis numéro 642 1377 imam nasai nag xadis numéro 2495 2497 ak 2498 imam Ibn Maaja nag xadis 2509 ak 2673 imam Malik nag hadis numéro 671 ak 2541 imam ahmad ibn hanbal lu bëri la ko indi kon gis na gis na xadis bi waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko rahimallahu jamii mu ne baabu qawlillahi taala wal amilina alayha wa muxaasabati almusaddiqina ma al imam mu ne baabu bunta ngi ni qawlillahi wax bur yàlla taala taala aji kawe ji wal aamilina alayha ak ñi nga xam ne mooy fi muy waxee ñi ñi ñu war a jox asaka mu ne wal aamilina ak ñi nga xam ne ñooy liggéey alayha ci kaw asaka dafa mel ni ñii rek a ci desoon ñooñu lañ tuddagul woon mooy ñan ñan ñoom ñooy ñi ñu war a jox asaka moo maanaam bokk na ci mooy ñi ciy liggéey te moom mooy ñan euh, mooy képp koo xamante ne dañ laa embauché pour nga bokk ci ñuy liggéey ci asaka bokk ci ñi nga xamante ne dañoo war a maanaam charte bi nga xam ne moom mooy eh, biñ lay joxee azaka maanaam nga bokk ci azaka maanaam duñ la jox ci cëru pauvre yi maanaam dañ lay jox parce que tout simplement dañ laa embauché te dañ lay jox selon li nga liggéey itam maanaam selon niñ la embauché looloo tax borom xam-xam yi rahmatullah ci kan la ñu war a njëkk moo tax ñenn ñeneen ki ñu war a njëkk a jox moom mooy d'abord ki ñu embauché pour mu dem toppatoo affaire dañ koy jox salaire lañ koy jox. kooku dañ ko war a am si jox ko salaire moo tax ci moom ci loolu bunt boobu lay amee azaka ci azaka ji waaye du ko ci jël parce que dafa ñàkk wala dafa am leneen lu war a tax voilà euh, moom nag euh, mu ne woo muhaasabatul musaddiqiina ak ñi nga xamante ne maanaam woo muhaasabat ak caytu al musaddiqiina ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñooy joxe azaka maal imam ànd ak imam bi maanaam mooy lan ak imam mooy ne imam bi moom moo war a xool ñan lañu war a jox pour ñen ñoo war a dem caytu ji ñooñu la ñu tuddee soaate mooy saa yi ñooy dem superviser xool euh, kan maam yooyu yëpp dañ ko war a am ak maam ñi ñi nga xam ne ñoo war a dajale asaka yi déjà ak ñi nga xam ne ñoom ñoo war a dem xooli ji mooy service impôt xool kan moom moo imposable ku imposableul ku ñu war a jox ku ah redevable maanaam redevance yi kan moo ko war a joxe ak ko war a joxe yooyu yëpp mu dem natt ko ak kenn ku ci nekk lu tolloog nan nga ko war a joxe maanaam mm-hmm. yooyu noonu. maanaam service la bu mag boo xamante ne ñooñu bu ñu organisé wu ba pare teg ko. loolu nag ñooñu nag dañu am droit ci ci asaka ji maanaam ci lañ leen di fayee maanaam fay boobu ba mu des nag su fekkee imam bi nag masalan dafa wutoon budget boo xamante ne danaan service état bi kenn ku ci nekk kii ci lii laa kii ci lii kii ci lii kii ci lii mu am budget bu boobaa ñooñu du dootuñu ci asaka ji maanaam dañ leen di fay ci budget état bi noonu rek kenn du leen du dootuñu amati cër ci. أذكر من قال بالإسناد المتصل في الكتاب الذي حدثنا يحيى بن موسى بن آه، راشد بن بلال القطان آه، رحمه الله تعالى من جنار ندوس عن سعان تراجع من جنار كذا ينتبه صلى الله عليه وآله ما آه، يوسف بن موسى من راشد ما <laughs> يوسف بن موسى رحمه الله تعالى nekkoon tamit waa Kuufa rahimahullahu taala dëkkoon rey ginnaaw ba mu dëkk Baxdaad rahimahullahu taala moom mu ne qaala xaddasanaa abu usaama te moom al imaam xammaad ibnu usaama ibnu zeyd al qurashi rahimahullahu taala mu ne qaala axbaranaa hisham ibnu awrat mu ibnu zubair ibnu al awaam mu ne an abihi mu jël ci baayam mooy si mu awrat ibnu zubair ibnu al awaam radiyallahu anhu mu ne an abihi xumaydin as saaidi Eh, radiyallahu taala anhu al-Ansaari al-Madani radiyallahu taala gisoon nañu sahabu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu taala anhu qaala mu ne istaamala liggéeyloo na rasulullah ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam rajulan benn waaye minal asad ci waa banu asad ala sadaqaati ci sa azakay banu sulaym maanaam ñooñu la gën mooy yudaa waa jooju ñu ngi koy woowee ibnal lutbiya maanaam kooku noonu lañ koy woowee waaye fa la ma baa xamante ne jaa dikk na nag xaasabahu daf koo ceytu moo tax li tax imaam Buxaari indi ko maanaam imaam Buxaari benn dafa ne waa dañ koo liggéeyloo ñaareel bi ci des moom mooy ba mu ñëwee imaam bi da koo ceytu moo tax maanaam mooy beneen partie bi wa muhaasabatil musaddiqiina maal imaam maanaam ñiy jox ñiy jox génne indi asaka yi mooy ñiy joxe asaka yi maanaam ñi ko indi di toppatoo asaka yi ñooñu maanaam ceytu gi leen imaam bi di war a ceytu maanaam mooy faw mu am ci kaw imaam bi maanaam mooy président de la république wala mel noonu maanaam président voilà maanaam ni ñu wala wala wala yu mel noonu maanaam kooku tamit moom ci boppam daa war a xool bu ko munul mu am ku mu samp koo xamante ne mooy nekk ci bopp gars yi di dajale asaka yeeg ñooñu yëpp mu xool ndax dëgg-dëgg nit ñi ndax def nañ seen liggéey ak nañ ko defee ndax baax na waa wala déet maanaam loolu faw day am contrôle boobu mooy mu am service da am kon service bi nga xamante ne mooy toppatoo asaka ñuy dem ñu di lu nekk la maanaam ak ku koy def ak dajale gi ak indi gi teg gi ak fan lañ koy denc. ak nan la ñuy xoolee kan lañ ko war a ci ci ñan lañ ko war a yóbbu loolu yëpp dañ koy xool waaye mu am tamit service boo xam ne pour contrôler la maanaam loolu lay wax ni maanaam pour contrôler ndax dëgg-dëgg liggéey bi def nañ ko nañ ko war a defee <laughs> waaw wala euh, waaw wala déet. loolu kon euh, maanaam loolu yëpp day wane maanaam lislaam li nga xam ne noonu la ay mbiram matee te amul dara loo xamante ne euh, lu ci manqué la. xadis euh, bi imam al buxaari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro 2597 6636 6979 7174 ak 7197 imam muslim dina ko xadis numéro 1832 ñaari yoon imam abu dawud indi na ko xadis numéro 2946 imam euh, ahmad indi na ko xadis numéro 23598 kon ñu gis ne waa xaabu kutubu sitta ñoom ñoom euh, ñett ñoo ko solo imam buxaari imam muslim ak abu dawud amma imam at-tirmidhi imam nasaa'i ak ibnu maaja ñoom ñëpp solo wuñu ko rahimahullahul jamii mu ne baabu istimaali ibil sadaqati wa albaanihaa li abnaa li abnaa sabil maanaam loolu mooy jëf jëfandikoo ibil sadaqa ñi nga xam ne moom mooy gëléem yi asaka yi gëléem gi nga nañ ne asaka gëléem gisoon nañ ni ñu koy génnewee léegi nag loolu bu ñu ko dencee parce que foog ñu am fu ñu ko stocké fu ñu ko jox maanaam pour doog ko jox ñi ko yelloo wala yu mel noonu yooyu nag mën na fi na koo denc téye tamit ngir jëfandikoo ko maanaam ngir ne imaam bi moom moo xam lu tax maanaam ci jamono ji nga xamante ne parce que lu tax mu ne bu fekkente ne loolu mooy li ñu war a jox mooy wa albaaniha ak ay meewam li abna istabil ngir doxandéem yi maanaam doxandéem yi maanaam wabnu sabil yi comme ñoom dañoo am droit ci azaka te doxandéem du ñëw maanaam ñoom dañuy ñëw di dem di ñëw di dem di ñëw di dem dëkkuñu fi maanaam ñoom dañ leen di jox azaka ci kaw sartu comme niñ ko gisee woon ñu bañ fee nekk ibnu sabil moom loolu la maanaam mu bañ a nekk résident maanaam bañ a nekk koo xamante ne tamit maanaam parce que bu xësee ba toog dëkk rek nekkatul doomu yoon maanaam boo ko nekkatul doxandéem comme ni nga xam ne noonu la ko ñenn ñi di waxee nga xamante ne boo da ngay mën a nekk fenn ñaari at ñetti at ñeent juróomi ñu ne saa waay doxandéem la loolu amul ci lislaam maanaam fi nga nekk maanaam foofu doo fa doxandéem ñi nga xamante ne tamit ñoom lañuy wax doxandéem bi ñu war a jox azaka moom mooy ci charte ne azaka jooju amul fu ko maanaam amul gisoon nañu euh, ni ñuy joxe azaka doxandéem bi yaakaar naa mooy mun na sabil charte yi ci yi ñu koy joxe azaka maanaam mooy faw mu bañ a koo xam ne alal ji da koo yor da ko yor ni da koy maanaam euh, euh, maanaam même bu amee alal fële. fekk na fii nii amul alal amul mënam amul alal fii mu ne loolu moom mooy mu kooku dañuy jox asaka voilà buñ ko mën nañ koo jox asaka itam mu dem ngir dox ba dem maanaam dëkkam bu fekkente ne foofu alal ju bëri dafa yor maanaam lu lu doy ma nga fa tey maanaam voyage bi rek la mënta fay bu boobaa asaka ji lool rek la maanaam li koy jox mooy lu mu voyagé ak lu koy teree am nekk ci soxla ci yoon bi ngir ne fa mu dëkk borom alal la fa. am naa su fekkente ne tamit naka jekk dafa ñàkk moom fii la dëkk gi moom kooku dañ koy jox azaka ngir li mu ñàkk euh, bu fekkente ne nag nit ki maanaam yooyu yëpp dafa am dañ koo mata dafa mat a bàyyi xel maanaam ci kañ kañ lañ koy jox azaka ak kan lañ ko dul jox azaka du doxandeem yëpp lañuy jox azaka dégg nga mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi wal kitaab lay xaddasanaa musaddad te moom mooy nu musarhad qaala xaddasanaa yaxyaa te moom mooy al-imaam ibnu saïd al Qattaan an Shu'ba muy ibnul Hajjaaj an Qataada muy ibnu Di'aamat as-Saduusi an Anas muy ibnu Maalik radiyallaahu ta'aalaa anhu anna naasa naka aw nit min Urayna ci Urayna ijtawwu maanaam dañoo feebaru jaw feebaru jaww al-Madina ca Madina mooy ne dañoo dem ngelawu Madina gi euh, moo leen dugg ñu ñu feebar seen biir yi di metti fa raxasa mu daal di woyfal lawum ñee leen Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa an yàttu ci ñu yegg ba ci mais ñu dem ba ci ibila sadaqa ah sarax yi fa sharibu ñu daal di naan min albaaniha ci meew ya wa abwaaliha ak mbéewal ya maanaam bu lii gisoon nañ ko bi ñuy wax ci wàllu ñi nga mbé maanaam mbéewal ak dem àllu ñi nga xamante ne dañuy nekk seen yàpp mooy gëlleem xar nag ñooñu seen mbéew ak seen meew yi du ñu ay sobe seen ak seen ak seen seen meew seen ay mbéewal ak seen dem àll du du sobe gisoon nañ ci wuute yi ci borom xam-xam yi wuute woon rahmatullah bañ ca toll maanaam imaam al-Bukhari nag rahimahullah lii moo tax mu indi xadis bi maanaam mooy ay doxandéem lañ dañoo soxla ci alal ji maanaam dañoo soxla lu ñu fajoo wala lu ñu naan wala yu mel noonu ñu daal di leen di jox wala lu ñu dundee ñu daal di leen di jox ci alal ji nga xam ne alalu asaka ji la maanaam looloo tax imaam al-Bukhari rahimahullah indi. Euh, bunt bi indi tamit xadis bi mu ne bu ko defee fa yashrabu ñoom ñu daal di naan kon min albaniya ci ay meewam wa abwaaliha ak mbéwalam maanaam loolu dafay dafay faj feebar yi nga xamante ne ñoom ñooy feebaru biir yi voilà mooy ay feebar yi nga xamante ne euh, comme gis naa fi benn waay bu mu mës a taseel euh, ci ci ku ma xam maanaam mu ne mu ne ma mun maanaam waa ji <laughs> leen a fekk ñoom ñaan ñuy waxtaan kenn ki ne moroom ne Euh, ñoom maanaam kenn ki bon France la dëkk mais Arabie Saoudite lay lay gën di maanaam Madina lay gën dina ne ki ci des nag moom euh, France la dëkk waaye marocain la moom mu daal di ñëw nag ñoom ñaar ñuy waxtaan kenn ki daan bon après kenn ki tourné ne ma euh, gis nga ni ñuy fajee maanaam sama sama sama fekk mu mu yor butéelu mu ne meewu la meewu gëléem la ak mbéewalam mu ne man dama amoon ulcère boo xamante ne damaa dem ba docteur bi dee na ma yow moom c'est fini moom yow fii weer mënatoo dundati lu tolloog weer parce que dama daan def bu ma sëqatee sax damay wàccu deret mu ne mais meew ngëleem gi ak mbéewal gi laa jàpp naan ko mbir mi li mu yéeme moom mooy dama julli timis naan ko balaa gee wér na maanaam c'est que <laughs> maanaam mbir mi gaaw gi mu gaaw mu ne mu ne boo xamee ku ci bëgg. nga wax ko quoi bu ko defee man ma jëlal ko Maroc ma ma dama ko mu ne moo tax depuis boobu laa xam njariñal kii bi feebaru biir yi te gis nga moom la yonent bi doon wax ni sallallahu alayhi wa ne ñooñu bi ñu amee feebar yi nga xam ne feebaru biir la nii ah daa daa daa daa meew mii la leen jox meewu gëléem ak mbéewal gi moom la leen jox ñu naan ko dégg mu ne kon eh, ñu daal koy dañ leen faqatalu waaye ñoom ñu daal di dem daal di daal di daal di daal dem rey nag raay wastaaqu ñu daal di euh, maanaam mooy rendite maanaam yàqte li nga xam ne mooy ak zawda euh, mooy gëléem yi maanaam nañ def moom mooy dañoo rendi dañoo rey maanaam dañoo dem ba wér daal dem nag rendi ki nga xamante ne maanaam rey ki nga xamante ne moom mooy mooy sàmm ba sàmm bi yent bi sàmm bi mu leen boole loon ne dem leen parce que ci àll ci biti lañ ne géttu gëléem yi ñu ñu ñu naan wir rek wir daal de xam naa jikkoy caay-caay gi dugg leen rek ñu rendi waa ji ñu rey ko ba pare nag daggate gilléem yi rendi yi di ci xam naa waaw yàlla na ñàlla mu ne fa arsala mu yowal rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa utiyee ñu dikkee bi him ci ñoom maam ñu daal di leen di dikkee maam fekk ñu daal di leen dabi ji balaa balaa balaa bee soof dab nañ leen ñu daal di indi fa qataa fa qataa yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di daggate ba ay diiham seen loxo waar julam seen tànk maanaam li mu def mooy dafa dagg daf leen a wutale hmm. wa mu daal di tuur ayunahum seeni bët yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la leen def wa tarakahu mu bàyyi leen bil xarrate ci euh, tàngoor wi ya'duna ñuy mar alxijaarate xeer yi mu bàyyi leen foofu maanaam gisoon nañu. xadis bi ci kitaabul wudu xadis bi moom mooy xadisul orani yénn maanaam xadis bi noonu la siiwee ci borom xam-xam ne rahmatullahi maanaam mooy moo tax bañ ko defee mu ne ndax dañoo xeex ak yàlla ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare ñu maanaam ñu ñu weddi yàlla ak yenent bi sallallahu alayhi wa moo tax yàlla def leen nii maanaam moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa maanaam mooy ñoom lu ñu def c'est simple comme que dañoo feebaroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël sàmmam ne nañ ko fa nañ nañ dem bi ñu demee ñoom ñu jël ñu jël ci meew mi ak euh, mbéewalu gëléem gi ñu boole ko ñu ñoom ñu naan ko wér ñu wér au lieu ñu ñëw sant ko sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ñu sant sàmmkat bi sàmm bi dañ ko rey ba pare yàqate gëléem yi maanaam daggate leen reen di maam euh, yàq yàq alal ji comme que loolu lañ def nag ñu fay leen lu askanoonte ak la def mooy dañoo dagg seen tànk ak seeni loxo jaawale leen maanaam ngir ñoom ni ñu jaawalee xéewal boobu maanaam ni ñu fayee xéewal gi ci lu bon noonu lañ jaawalee seen seen ah, tànk yi ak seen loxo ba pare bàyyi leen ci naaj wu tàng yi ngir ñoom nañu doxale ñu doon ñaan ndox yeneen bi saa sam ne bu leen kenn lu jox lu ñu naan bàyyi leen leen non lañ noonu la len bàyyi ben de manam li tamit bokku na ci lenen limi muy moy mooy ne yeneen bi saa salaam day doxale ku nek ak la askanoon teg yow parce que tamit bu fekkoonte manam maanaam imagine nga li ni ni mu nekkee xadis bi wax maanaam xadis bi euh, euh, maanaam ak yeneen bi alayhi salaam ni mu mel ti nga xam ne mooy incarnation yërmande borom subhanahu wa taala mom ci jëmmi boppam ànd ak loolu yëpp maanaam lii moom mooy li jaadu fii parce que su defut lii lii ak yàqute bu rëy lay indi ku ne mën na koo def suba waaw gaa yi ngi di wax yépp maanaam bu kenn rey bu kenn kii bu yooyu ñuy wax lu tax taux de mortalité lu tax taux bi di yokk saa saa su ne taux bu kii meurtre yi assassinat yi loolu war nañ koo xoolal day nga mëna taba wo top nako manam moy top na ci hadith bi moy qatada ki top xat qatada ci wax bi moy a ah, ah, abu mom moy euh abu kilaba moy abdullah ibn zeyd ibn amr euh, rahimahullah taala jurmi rahimahullah taala di wa basara mom euh, mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt sallallahu alayhi wa wa xumayl mom moy at tawil wa saabit mom moy ibn aslam al bunani rahimahullah taala an anas moom ibn malik radiyallahu anhu maanaam kon ñoom xadis bi gisoon nañ ko ak seen wax yi gisoon nañ ko bañ ca tollee moo tax xadis bi tamit masalan bokk na ci xadis yi nga xamante ne moom la ñuy joxe exemple bu ñuy wax ne du du du du du xadis bu ne ngay nettali ñëpp maanaam comme moo tax boroom xam-xam yu njëkkee salaf yi rahmatullah alayhim daanu ñu nettali xadis bi par exemple ku mel ne xajjaaj parce que Xajjaaj comme que da daan rek di reyee di reyee maanaam buur la woon di reyee euh, ku wax lu ko neexul mu rey ku kii mu daggalu bët tuur sa bët boo nee xalaatuma li nga xalaat loolu mën na la fekk ak yu mel noonu kooku boo ko jàngalee xalis bi moom da ciy sukkandiku commencé wax ne way ñii may rey c'est parce que dañuy yàq dañuy yàq dañuy indi désordre xam nga nguur gi boo il faut que nga yore ko doole parce que soo deful loolu dañuy dañuy anarchie day am nangam ko di di layee xadis bi moo tax maanaam xadis bi xam woon ndax borom ko koy dañ ci kaa nëbb kaane ba maanaam loolu tamit <laughs> loolu tamit euh, beneen euh, mbir la ci maanaam xadis bi imaam Buxaari rahimahullah taala indi woon na ko xadis numéro 233 mi ngi koy doog a indiwaat fii ci xadis numéro 3018 dina ko indiwaat ci xadis bi mooy xadis numéro 1000 501 nii ah la ko doog a indiwaat dina ko indiwaat xadis euh, euh, numéro 3018 4192 4193 4610 5685 5686 5727 6802 6804 6805 ak 6899 imam muslim na ko xadis numéro 1671 ñaari yoon imam abu dawud na ko xadis numéro 4364 imam at-tirmidhi na ko xadis numéro 72 ak 1845 ak 2042 imam nasaayi in na ko Eh, moom lu bëri la ko eh, indi eh, ndax indi na ko fukki yoon ak benn imam ibnu majan na ko xadis numéro 2578 ak 3503 imam ahmad tam lu bëri la ko indi kon dañuy gis ne xadis bi wax xaaba kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko rahimallahul jamiir mu ne baabu wasmi l imami ibl sadaqatu bi yadihi baabu e, bunt bi nga xamante ne moom mooy wasmul imaam maanaam màndargaal gi imaam bi di màndargaal ibilu sadaqa e, e, gëléemu sarax yi azaka yi bi yadi yi ci loxoom maanaam moom mooy ne ki nga xamante ne mooy alal ji nga xamante ne du du gëléem gi kese waaye alal ji nga xamante ne dafa nekk alalu azaka ji maam dañ koy wuutal màndarga maam tampon wala lenn loo xam ne day tegtale ne lii kat azaka ji alalu azaka ji la su ko defee kenn du ko mën a jëfandikoo def ko def ko ci leneen maanaam ñu xam ne lii pour azaka la dafa am ci ñu mu war a dem maanaam te dafa am tamit lu ko tax a jóg maanaam loolu nag moom lay leeral fii nii maan ne imam bi moom moo koy def te maanaam imam bi mën na koo defal boppam keneen itam mën na koo def mu daal di wax ne qaala bil isnaad muttasil fi wal kitaab lay xaddasanaa Ibrahim ibn al-Munzir ibn Abdullah ibn al ibn al muy abu ishaq al-qurashi al-asadi al-khuzami rahimahullahu taala nekk waa madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam génnaat na 236 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana al-walid te mooy ibnu muslim al-qurashi rahimahullahu taala bokk ci juróom-ñetteelu génération bi nekk waa Dimashq rahimahullahu taala gane àdduna 119e année génnaat na 194e année ginnaaw gàddaay Yonent bi صلى الله عليه وآله وسلم من قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي إمام بمك أبو عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو الشامي رحمه الله تعالى دي الأوزاعي بوك مام نكت إمام مدير وهو نفقه الشام رحمه الله تعالى من قال حدثني إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة مي دي دي دي, دي سب ها waa al ansaari maanaam eh, di di di di di doomu di doomu maanaam di di di ci ci ci ci ci Seydina Anas ndax Abdullahi ak Seydina Anas ñoo bokk yaay mooy Umu Sulaym walla radiyallahu anha mu ne qaala xaddatani Anas ibnu Malik bi Seydina Anas ibnu Malik radiyallahu taala anhu mu ne noo qaala nee na xadawtu xëy naa ila rasulillahi dem ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi Abdullahi ibnu Abi Talha ma ànd ak Abdullahi ibnu Abi Talha li yu ko ngir mu tax nit ko maanaam boobu day doog a juddu nekk xale euh, nee na ma daal di xëy dem yóbbu ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir ne euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy doom ñoom ñooy saxaaba yi radiyallahu anhum seen doom yi dañ ko daan yóbbu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu defal leen tax maanaam moom mooy day yëy tàndarma daal di koy teg ci seen euh, làmmiñ yi bu ko defee ñu màcc ko loolu euh, moom da leen di jural barke maanaam loolu nag moom comme gisoon nañ ko tamit ci biñ nekkee ci kitaabul wudu loolu tamit gisoon nañu technique yi maam yonent bi sallallahu alayhi wa li nga xam ne noonu la ko daan defe maanaam euh, yonent bi sallallahu ku kon loolu tamit moom moo tax sunna la boo xamante ne daanaka léegi dafa ñu bari bëri xamuñu ko maanaam moom mooy euh, bu nit ñi maanaam xale yu juddoo ñu jël xool ku yaakaar ci moom ak mbaax ak cell te bu ko defee mu daal di koy defal tax nit maanaam loolu fayu euh, euh, mu nee na fa waa faytuhu nee na ma daal di koy mu nee na ma fekk ko fii yadihi ci loxoom al al al al miisamu maanaam miisam moom mooy Euh, man maanaam li ñuy màndargale maanaam mooy miisam li ñuy màndargale nga xam ne yasimu ci lay màndargale iblis sadaqa maanaam gëléemu sarax waa voilà gëléemu asaka yi maanaam kon loolu moom mooy euh, buntu bi nga xamante ne euh, loolu moom mooy xadis bi imaam al buxaari rahimahullahu kon daf ko indi ngir dëgëral ngir leeral ne lan ne kon dañuy màndargal alal yi asaka yi maanaam nit te it même bu ñu ko ma defalul mandarga itam maanaam faw ñu denc ko ñu teg ko foo xamante ne duñ ko jaxase ak yeneen alal yi loolu daal mooy mooy mooy mooy jëmmi euh, mbir mi beneen bi ci des tamit moom maanaam lool lay leeral beneen bi ci des tamit mooy bokk na ci xadis bii li muy leeral moom mooy ne su fekkente ne dafa am dafa am euh, euh, maanaam lu war a tax ñu métital ab njaay àll maanaam bàyyi ma maanaam su fekkente ne lu lu war a tax la bu boobaa loola métital gi du nekk loo xam ne lu xaraam la li xaraam nag mooy métital ko ci lu amul njariñ comme li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne dafa yéegoon ci kaw gëléem moom rek taxaw di waxtaan maanaam mu ko wàcc nga noppal ko waaye nag su fekkente ne comme lu mel nii la maanaam bu boobaa lii day nekk loo xamante ne lu lu jaadu la maanaam ngir ne buñ ko deful alal ji day jaxasoo ak yeneen alal ji te alal azaka ji maanaam waroo jël alal azaka tey buñ ne la ah, boo jëlee alal azaka masalan war koo jox keneen yow waroo koo jël rek day day boole kook sa biir sa alal déedéet da nga kaa war a séparer ba nga xam ne alal jii moom moom ma ko pour azaka la maanaam ke parce que dañ ma kaa jox pour ma jottali ko ki ko moom maanaam kon pour loolu la loolu moom moo tax maanaam imaam al Buxaari rahmatullaahi bi waaye tam indi lan xadis bi di leeral loolu wallahu alam xadis bi imaam Buxaari dina ko indiwaat xadis numéro cinq mille cinq cent quarante ak cinq mille huit cent vingt quatre imaam Muslim dina ko xadis numéro deux mille cent dix neuf ñeenti yoon imaam Abu Daawud dina ko xadis numéro deux mille cinq cent soixante trois imaam Ibnu Maaja dina ko xadis numéro trois mille cinq cent soixante cinq imaam Ahmad ibnu Hanbal dina ko juróom-ñetti yoon kon ñu gis ne xadis bi waa saabu kutubu sitta ñeent ñoo ko ci indi muy imaam Buxaari imaam Muslim imaam Abu Daawud ak imaam Ibnu Maaja amma imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i indi wuñu ko rahimallahu al-jami' ci kaw lolu kon ci hadith bobu ci lañu jéxalé ñi xamantene mom moy walu azaka manam tir azaka buntu azaka leer na alhamdulillah léegi jeex ñi nga xamantene nak mom lañu wara gis inshallah taala ci jotay bi di ñëw ba tay mu bokk ci kitaabu zaka manam ngir ne mu na nako ber mu nek kitaabu zaka wala bok mu nek ci manam mu nek Euh, beneen wax leneen loo xam ne ci kitaabu zakatul fitri lay daal di nekk loolu comme moom insha allahu taala dinañu ko gis ci suñ jotaay bii di ñëw insha allah maanaam ñu gis ne li ci des yi gis ci li war a gis yépp ci wàllu azaka moom mooy wàllu zakatul fitri maanaam mooy azaka yi loolu euh, muurum koor li ci aju loolu la ñu war a gis euh, ci suñu jotaay yi di ñëw insha allahu taala bu ko defee moom su jeexee rek ci la ñu daal dugg ci ci at